dañoo gis ne làmb ji mbër yu bëri leen dañoo dugg si MMA bi mais dernier combat yi amuñu si lu leen neex gis nañ ci euh, Bombardier mu daanu par KO si de démb tamit gis nañ combat bi ni mu mujjee yow ban jàngat nga si am. waa jàngat bi ma jàmm maa ngi nuyu senegal yëpp di leen ñaanal jàmm jàngat bi ma am ci MMA rek bu leen fàtte ne Bombardier mi ci ñàkkoon daa tere 3 victoire ci MMA xaw ma 2 doo ko ñàkk benn surtout ba mu commencé rek MMA ba muy gagné démb lay doo ko ñàkk te muy doo ko feeñ. Sénégalais nag bu nit doom di def dara di ci gañe ko gëstu bu ci ñàkkee rek la doo gëstu ñu ngi nag sargal moo gën mi nga xam ne ni tey jii doomu senegal la bi nga xam ne day tëgg MMA li nga mbër yi ñëpp mënuñoo tekkee ci làmb xale yi nañ jéem a nekk ay athlète ku ci am possibilité dem bëri ji MMA nga dem defi ji ko boo ci sa capacité yaram maye boo ko sa xol maye boo ko sa ma maye MMA nag ak làmb bokkut ay ay mooy tax mbër dem fa. ay norme moo tax mbër mën cee am ndam loolu laa lu ma ciy wax. MMA art mixte la gis nañ ne mbëri bi làmb rek lañ xam ba pare dañ ciy yéex a dugg est-ce su ma déggee bu baax yow da nga mel ne da nga d'accord si mbëri dugg si MMA malgré défaite yu métti yi ñu ciy am. waaw xam nga défaite mënut ñàkk ci àdduna te bi làmb sosoo ba léegi Sénégal mbëri dañoo war a dem jéggaane ji leneen lu bokkut ak làmb indi il faut làmb ñëw il faut làmb ñu bokk ci. MMA mënta ñàkk. dernière question bi. Siteu dafa mel dafa sonn si biir làmb ji est-ce que mbëri entraînement bi war ñoo ngi koy def bu ñu xoolee à haut dafa mel ni mbëri entraînement bi war duñ ko def. boo xoolee préparation Siteu MMA yu mujj yi ak bii nga xam ne am na la ute Siteu combat yi doon def ay combat rapproché yu gën a métti te sonn ji kon bu combat bi melee nii rek dañuy bëgg Siteu moom bu paree mu indi boppam xam ne àdduna dañ koo bëgg. bu daanoo Sénégal day daanu am na ñoo xam dañ koo bëgg ba gëmewuñ ko boo léegi bi compétiteur MMA na bàyyi xel ne am na ñu bàyyi ginnaawam te image am toll na foo xam ni ci àdduna bi waratu la daanoo ci MMA kon balaa muy demati na pare 100 pour cent te moo gën mi nga xam ne doomu Sénégal la di tëgg làmb fii di tëgg MMA Amérique ñu ngi koy ñaanal jàmm te gën a may mbër yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal possibilité ñëw dugg ci MMA bi na leen ndax làmb ji yëpp mënuñ cee mënuñ cee réussir. am na mbër yoo xam ne dégg nañ daal ci làmb te mënuñoo mënuñoo mënuñoo am dara ci làmb kon ñooñu boo demee sas MMA mën nañ tey réussir dimbali ci seen waajur jërëjëf gànna gi dañoo gis ne mbër yu bëri ñu ngi ciy dugg di si am ay defe di métti si dernier combat bi yow nan nga gisee MMA waaw MMA sport la mais sport bu ànd ak armation la il faut ñu jàngi armation bi dañu war a jàng boxe kickboxing boo xam ne day ànd ak tànk ak dóor boxe française ndax dafa boole ay ay forces armation yoo xam ñu bëri du bëre kese te mbëri ma gis mbëri sénégalais yi yëpp daanaka bëri bi la ñuy favoriser mais nag il faut ñu ànd xeex bi il faut ñu jàng ko dafa may coup de poing yi ci am boo gisee yow ñi koy def par catégorie la si da combat yi naan bi du benn saa yi boo gagné dañuy wutal adversaire boo xam ne nii moo la ci ëpp niveau ngay gën a dem ñu ni loolu moo dar bombardier kon léegi ñoom dañu war a bàyyi xel loolu te xaalis lañ fay am te xaalis bi ñu fay am tamit dañ leen koy yéene dinañ ci encouragé mais ko préparé da jël ay crosse sa bopp di jël ay coup de di jël lépp te bopp kon nag dañ ko war a jàng bu baax a baax. ma relancer la foofu. Siteu combat bi mu amee combat yàggul mais ñi ci MMA bi daf si sonn est-ce que mbëri ñu ngi entraîné normalement est-ce que am nañ coach yi est-ce que jël nañ ko au sérieux MMA bi. gis nga nga baal ma mbëri muy Siteu ak yeneen mbëri mag yëpp kenn entraîné ci li war a entraîné fi mu toll nii seen xel dal na dañuy mottali rek loolu mooy seen problème te rek pour ñu wane la ci loolu dafay yomb. pour ñu wane la ci nga joxe sa secret dafa yomb gisee fi mu toll nii muy du Siteu kese de ba ci mbër yu mag yi nekk fii Sénégal sa entraîné tuñ booy yi li ñuy daj ñoom duñ ko daj am nañ xaalis seen xel dal na dañuy préparé rek préparation mais entraîné wuñu rek gaynde <laughs> jërëjëf waaye nii lay bëggee di la jox sa waaj waay jaajëf maa ngi lay fay benn yow ñëpp xam nañ la si làmb say say analyse doo jël demi mesure combat MMA mbër yi yow lan nga si xalaat benn bu ñu jógee MMA nañ fa dem danañ leen rey ñoom ñëpp MMA du yëfu nit ku ñuul ñëpp tubaab la gis nga lamb ji tubaab yi MMA yi buñ fi ñëwee da leen leen duma ba ñuy xoolee benn bët damaa bëgg a déglu baax na wala ñu xooleen ba ñu gis MMA du yëfu nit am na wéq am na matt am na gàjji am na luqi te tubaab yi dañoo mën a wéq mën lépp nañ bàyyi MMA bi ngir yàlla ak yonent bi ngir yàlla dama leen di ñaan mbër yi bàyyi leen MMA bi danañ leen ci rey de. ñu gis ne que Siteu bi mu amee combat yaa xoolal non bul bul ma tuddal ma nit. waaw non analyse. déedéet non ma tuddal nit danga ma ne MMA. MMA du ma tudd nit wala ma dem. waaw ne. mbëri yi ciy dugg. waaw gis nga MMA dafa am nii kuccël. am wéq. am matt am gajji. mbëri bàyyi leen ko ñëw fii bëre ku ci bàyyiwul nan lañ la rey. jërëjëf père ah, MMA mbëri ak MMA yow ban analyse nga si am. waaw mbëri yi il faut ñu pare pour mën koo def. Ah. bu parewul duñ ko mën a def am nan doole mën nanoo bëree mën nanoo xeex mais bokkul ak bëre bi parewunu bëre mix la mix art non xam naa lépp xam naa MMA discipline yi ci nekk monde bi yëpp lañ ci dugal mais du da ngay pare moo mooy tax nga mën koo def boo parewul parce que gars yi li na amoon avantage léegi tubaab nan nan leen mooy bëre la ñu amoon avantage boo ñuy yenu dóor ci suuf xeex ak yow xam nan loolu léegi ñu gis sa doom si da dernier combat MMA ñu dóor ko ñu mel ne dafa sonn si combat bi. mais bi du benn faay teñ bi moom metti xam nga bu dee bëri da ngay après mën ngaa jekku bëri rek daan affaire ba jeex fii fi bëre Sénégal di jeexe foofu la MMA di commencé mooy bu la daanee ba nga yegg ci suuf fa lan lay ndullee ndull yoo xamante ne nii règlement yi du benn du benn booy il faut nga pare daal boo parewul doo ko mën a def. sa doom moo gét te gën a tamit ay combat MMA. voilà xam nga kooku c'est anti sénégalais. waa ñu waajal ci seen bopp entraîné ba miin ko loolu moo gën def loolu mooy li am solo ñoom ñooñu bu nu demee Malick Niang xam nga ne ndaanaan la ak Abdou Diouf combat bu neex la léegi bu buñ ci jógee ab virus bi dina dugg ñu xam seen nan koy def entre ñun nan koy def fii mais mënuñu koo def fii di ko def États-Unis wala Pologne wala Europe nga dem fa bëgg fa am ndam te pare woo ndiinuñu ko. miinunu ko buñ ko miinoon xaaw mais miin ko. jërëjëf merci waay. mooy bi mujj am muy combat Siteu. waaw man liir ñun bëri yi maîtriser wuñ élément bi. maîtriser ko. parce que sport da nga koy maîtriser da nga koy pratiquer xam ko mais la pratique xamuloo ko pour nga liggéey si réussir si lay jafe dèjà ñoom dañoo jàpp ne bëreel du du bëre te damaa seetlu élément bi gars yi siy compétir ak sénégalais point la ñuy dóor point. Koudzanu dañuy du def lépp. te mbiru Sénégal dañuy fexe ñoom ñun la jàppee pour daan la te gars yi boo leen daanee sax ñoom taxul nga gañe leen heure la gars yi ko war a jàngat bu baax a baax war ñu wut war ñu boo xamante da koy xam ñëw fii dinañ ko jàngal mais ñooñu demee tout le temps seen xel la ñuy demee moo tax tout le temps bu ñu demee bi am ay jafe-jafe loolu laa gis. am bi mu mujjee am ak Papa Sow ñi si combat bi dafa mel ni dafa que préparation yi tamit jaar na yoon. waaw parce que suñu dafa dégg feeñ na foofu li mu préparé si combat bële feeñ na moom xëy na li mu liggéeyoon sama poisson jàppoon jàpp ne combat waa tuur ma du yàgg moom si loolu la doon bëri waale bu ñëwoon mais xëy yàlla def combat ba yàqu loolu mu liggéeyoon sa combat poisson jàppoon ne du yàgg heure bu war bi si lay bëre daa dem MMA bi loolu feeñal ko. jërëjëf sëñ bi. lay ziar baax di bëgg. ma ci def rek mooy nañ gën a defaraat seen taxawaay xale yi xam ne ñu ngi nekk ci làmb bëgg a def MMA. MMA entraînement ak entraînement bëre dóor bokkuñu MMA moo gën a métti ndax am nañ ay xale yoo xam ne ñu ngi ciy entraîné soo xoolee Siteu forme nga xam ne moom la jëlee ci Papa Sow soo continué woon mën naa ci combat boobu mais gis naa ne physiquement taxawut ndax gis naa ne bi ñu taxaw de corps à corps yi waa ji soo xoolee xam ne daa sonn mais bi mu sonnee dem ñibbi Sénégal maanaam ñibbi Sénégal mooy dem bëre ji dafa daan waa bi la waaj bu ko bi mu daanee waaj toog ci kawam ñoo woon pour daan daañu woon pour noppalu bi mu daanee waaj ñoo woon pour daan daañu woon pour noppalu te dañu waaj waaj écarté loxo bi génne ko ëllëg di ko daal yëg ci kawam ku sonn su yëg sa kaw day dóor ba nga toog c'est un champion la du mbër mu ndaw lépp lu ñu dugg ci daa war a pare soo def su parewul waru koo def loolu rek wax. mbëri ak MMA yow ban xalaat nga seen est-ce que mbëri war nañ continuer ci MMA. waaw suñu bëree door bi ñaata at mi ngi Sénégal mënul génn si gisee la loo xam ne da génn da ngay dem defi ko parce que du lamb rek du continuer mais ñam fi ñam fële yàqul dara mais li ma leen di wax rek mooy MMA du écurie Lamsar du écurie Zap du écurie Fass dafa am écurie sociale bu ci nekk dañu xool écurie yu am valeur yu baax yi yu am coach yu baax même soo amul coach bu baax nga fay coach bu baax mu entraîneur am dem ci saal yu baax yi ndax fee du ay caaxaan tubaab mën nga ko nax benn yoon waaye du ñaar te soo xoolee suñu premier combat Sénégal yëpp dañ koo daan mais deuxième combat troisième combat yëpp dañ koy perte kon tubaab bi suñ la jëlee rek dañ lay jàng tubaab lan da moo ko jaaxal ku mu xamul mais su la xamee pour nga daan ko du difficile lay doon mais ñoom tamit ñu leen tubaab di jàngee nañ jàngee noonu dem yu baax loolu rek laa leen digal jërëjëf naka la. Ibra Diouf Mbéwane production. dañoo gis ne que da dugg si làmb simple bi teg bu am am solo est ce que mën nga ñu wax lan moo la waral nga dugg si mbabat bi ak lu tax nga am importance lool sa xam nga la yàgg ci làmb rek. nekk ci kuréel gu mag gu ñuy wax la jeune amateur. nekk ci vice président. yàgg ci lool di dox ba tey ñu jël licence bëgg a dugg ci làmb ji ngir yokk làmb nag. waaw loolu rek moo ñu ci dugal. moo tax bi ñëwee dem waxtaan ak staff bi ñoom Balla Diop gars yëpp rek. incha allah suñu première journée ñu ngi ko war a def le 6 teg fii ci Iba Mar 3 millions incha allah. 3 millions 3 millions waaw. incha allah jërëjëf. waaw ñu ngi lay fay jërëjëf. jaa ngay jëf merci. xam nga bu fekkee da ngaa génne ambassadeur ngay doon am na way représenté sam réew muy dafa sol vert jaune rouge dem représenté Sénégal kon nag dañuy manqué pour supporter ko pour yàlla def MMA bi nga xamante yàlla def li mu ko def mu am ci ndam man dama koy félicité parce que am na ñoo xamante tey ñi ngi ci ginnaaw topp ci ginnaaw parce que espoir dafa war a jur. xam nga bëre bu ànd ak dóor Sénégal rek la am waaye amul feneen léegi dem na tubaab bi di ko pratiquer ñu ko def MMA kon donc dafa am loo xam ni bëre bu ànd ak dóor am na lu mu jur. kon donc kon sport dafa fi mu toll mi ngi yaatu yaatu bi mu yaatu muy bëre bi ànd ak dóor mooy yaatu kon nag donc sénégalais bu fu mën dem muy sittam muy ku mënti doon war nga cee jëmbal sa bopp ak sa fulaak fayda pour représenter bi nga représenter Sénégal. ñi topp ci yow bu ñu fa demee am jom ak fulla jooju nga xamante ni tey fu ñu mën dem di indi ndam ci Sénégal. préparation bi ñu ngi si combat bi si dafa mel lu sonn. Hmm. est-ce préparation yi jaar ma yoon. waa dafa des ah, entraînement moo des parce que bu fekkee ne athlète nga da ngay mën di entraîner si bopp mu fekkee ne yow danga nga bëgg a représenter loo xamante ni yow population bu Sénégal da ngay war di entraîner guddeeg bëccëg parce que sab nawle ngay dajeel kon entraînement dafa da nga ko war di jëmmal bés bu nekk. def ci fulaak fay rek jëmmal ci sa bopp kon nag donc am na fa benn instant boo xamante ni Siteu doomu aadama day sonn mais coono boobu nag na xoolaat erreur yooyu nga xamante ni coono bu da koy dikkal mu continuer entraînement parce que entraînement dafa am lu mu laaj il faut nga ñeme coono jërëjëf